que dama ne balaa nga ne naam da nga fay nekk li may wax ni si nasaraan laa koy wax parce que ka ma ko dégleel mooy nopp président la république ak nopp ministre de l'intérieur boo amul këyit daanaka mën neen wax sa nekkin ci àddina dafay jafe parce que loo def këyit la ay junniy junniy nit ñu ngi ci àll bi amuñu carte d'identité boo amul carte d'identité munoo am carte wote boo amul carte wote munoo wote boo munul wote ku la neex moo lay jiite. donc xeex bi mooy nit ñi taxaw am ay kayitu juddu am am am carte d'identité loolu nag président la république lañ koy wax na wax ministre de l'intérieur am mu def encore ay effort nit ñi am ay këyit ñun bañ ci tolloo jamono. organiser woon nen fii ci suñuy pexe opération bindu jamono boobu yàlla dimbale woon nañu ñu maye lu toll ci ñaari junniy kayitu juddu tey ci tey maa ngi dajeek ak ay xale ak ay mag yu samp kër walla ñu nekk bitim réew di ma gërëm ci loola ñu defoon